ayo salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal fii ci GCB euh, ñu amal fi benn plateau boo xam ne ni dafay jëm ci loo xam ne ni actualité la muy li jëm ci mbirum Ousmane Sonko ak li nga xam ni dañ ko ko jiiñ muy viol yaakaar naa ni actuellement boo duggee ci réseaux sociaux yi yëpp wax nañ ci journaux yi bind nañ ci euh, rajo yeeg télé yi yëpp a ngi ciy wax muy nekk actualité boo xam ne ni euh, du ñu raw comme niñ leen koy faral di waxee rek ndax GCB moom fi lépp yu tàngee Euh, ñu am ci benn plateau boo xam ne nag damay jàkkaarloo kii di Baye Assane Mesra nga xam ni moom ku ko xam miin nga ko ci réseaux sociaux yi miin nga ko ci télé yi ak rajo yi du ñàkk moom mu mën ci indi ay jàngat ak lan moo ci bees aussi parce que mbir bi depuis mardi la woon femme bi nga xam ne moo ko jiiñ viol bi euh, porté woon ko plainte euh, yaakaar naa ni femme bi déglu nañ ko Ousmane sonk nag déggaguñu fenn fu ñu ko convoqué wala moom fu mu waxee lu dul bind na ci page Facebook am daal di weddi dem ba teg ci sax ni lii lépp ay la yoo xam ni état moo ko teg. Euh, ay ujjëm la ñoo ko teg xëy na loolu lépp daan ci gën a dikk mais liberté wóor daal mooy Ousmane sonk moom jiiñ nañ ko viol dem na ci benn sa salon de massage boo xam dafa doon massé wu mardi à 22h la fa dem doon fa massé wu doon fa massé wu ba ñu jiiñ ko fa viol loolu nag xëy na bu nu wax xuusee ci waxtaan bi am na lu ci bees Baye de dana ci dikk Baye Assane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bàcc ma Samba. waaw di la jaajëfal bu baax a baax di la bàyyi boo nuyoo ba pare sa sponsor bi nga yor rek ñu daal di gën a xuus ci mbiru Ousmane Sonko sponsor bi Baye Assane moom lu mu doon daa mel ni waa ji ñëw na de. waaw xam nga ne man moom sama lépp léegi sponsor la gaa yi nañ si bàyyi xel bu baax a baax na su ma dee dem nii sax dem bi may dem rek sponsor la. mu ngi noonu dëgg kon ñu ngi gërëm sponsor yëpp. ak taam bi nga xamante ni taamu nañ ko sit bu mag bii di CGB. di la nuyu di nuyu Sénégal ak Sénégal si ñuy bàyyi xel kilifay diine yi ak kilifay aada yi sëriñu daara yi ak ñiy aar daara di nuyu waa bitim réew di leen ñaanal di nuyu laa Linguère ak Sohibou Diop. sponsor bi moom lan moo ko tax a jóg. waaw lii nag mi ngi tudd. Euh, mille force ah. mille mille force. Ah. waaw kii mi ngi dox si euh, ballonnement. ballonnement quoi ballonnement waaw. Ah. ak ahasim. asim ak euh, asthme asthmatique ku am asthmatique. kii kii daal. ni ma la ko mën a waxee si gàttal. Mhm. da koy baxal di naan comme attaaya. mboolem feebar. kii mooy ataaya bi ma fi faral di jox. ataaya baa kii gis naa ci njëriñ. bii ñëma ko bii Assane léegi xam nga nu ñuy def. bii da ko ñam. kon léegi da ngeen di jéem a xool. bii da nga ko am di ngeen am. di ngeen euh, jeex na numéro téléphone yaa ngi noonu. biir bu sol ngelaw. Mhm. moo si gaaw. ballonnement lépp lay dindi. ba pare day gaaw a digérer mu ngoog. ak gileem sax boo ko lekkee gileem. boo ko naanee mu rees. <laughs> est ah, te da jox wér-gi-yaram. <laughs> day dindi ay problème stress ak yooyu yëpp moom lay sam xel day ubbeeku kon waa ji ñuy waxtaanee war na cee naan ndax stress bi day mi ngi noonu kon mbokk yi mhm. Baye Cheikh Fall moo leen di gunge si liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy amal baa ci Bathie Massamba mhm. waaw Assane tey nag euh, ñu war a waxtaane loo xam ni actualité la ci réseau sociaux yi ci Sénégal yëpp muy Ousmane Sonko mi nga xam ne moom moom parti Pastef dañ ko jiiñ viol ci benn salle de massage bu mu demoon moo ko moom wala moo ko jiite ah moo ko moom wala moo ko jiite Pastef moo ko jiite moo moo jiite Pastef ndax moom lañ fi xam ci ko non je sais pas en tout cas moo jiite parti Pastef daal. Hmm. parce que fii Sénégal pratiquement parti yi ni muy tëddee mooy. Hmm. ki jiite parti bi yaa ko moom. surtout ma Ousmane Sonko tey jii lii ñu koy tuuma bu dee dëgg dañ koy dàq si parti bi du tee parti bi dem. bu dee dëgg la dañ koy dàq est loolu daan ci gën a dugg. kon daal loolu mooy information bi Ousmane Sonko dem na ci benn euh, salon de massage doon fa massé ci ay xale yu jigéen ñu jiiñ ko fa viol ñu dafaa xale bu jigéen xale bu jigéen bi porté na plainte yóbbu ko yoon dossier am bi mu ngi nekk en cours Assane lan ngay wax ci loolu. waaw xanaa naka euh, di si am mbetteel. Mm-hmm. di si am mbetteel mu rëy moo xamante nii daal pour ma dugal ko sama bopp ba léegi nii bàcc day metti trop. ndax euh, ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko yaa ngi dégg moom moom si boppam mooy wax bu dee wax naan tuumaal nañ ma lii tuumaal nañ ma lii jiiñ nañ ma lii jiiñ nañ ma lee fii ba bufte bi di wol du ngeen génn si man. loo xamante ni méngoo wut ak sarti réew mi méngoo wut ak sama diine. waaw ay discours am la moo koy faral di moo tax nag ñi nga xamante ni dañoo bëgg Ousmane Sonko boo tuumaalee dara Ousmane Sonko dañuy taxaw waatal la. Mm-hmm. dañuy taxaw waatal la ni la li ñu tuumaal Ousmane Sonko du dëgg. non lii moom ñi ma dañuy taxaw noo xam dañuy taxaw xeex. Mm-hmm. xuloo mm-hmm. lu lépp lu mu laaj dañ koy def ndax xam ki ñu àndal mooy kan. xam ki ñu àndal mooy kan kooku nag kooku ñu xam ki ñu àndal mooy kan ba mu jaral leen waat suñ ko déggee si yoo xamante ni ay caaxaan la loolu dana leen bett ñoom ñëpp dana mel ne ay mool yu ñu leen yan xam naa ne ñoom ñëpp a biddanti tey. waaw mais bien loolu moom am na parce que nit aussi bu ñu la waxee ci moom loo xam ni foogoo ko ci woon ci moom wax dëgg yàlla dina la jëlee kaw mais man nag Assane foofu dafa am jàngat yu ma fiy def Ousmane Sonko en tant que Ousmane Sonko ñu xam ko ci réew mi ak euh, niveau bi mu am ak euh, dayo bi mu am ak jàmbaare gi mu jàmbaare ak wax dëgg yàlla liggéey gi muy liggéey réewam ndax it nag euh, Ousmane Sonko loo ko bañ bañ nangul ko ni ku jàng la loo ko bañ bañ it nangul ko ni biñ ko xamee ba léegi ci njub rek lañ ko xam wax dëgg yàlla boo àndul ak moom it ci njub lañ ko xam mais Ousmane Sonko yaakaar naa wurta mën a sàggan sàggante gu toll nii am ñaari soxna ci li ma dégg ñu ni am na ko ñaari soxna bàyyi fee ay soxnaam benn bi ci bi li mu njëkkal a violé loi mooy 22 heures parce que couvre-feu bi j'espère que vingt heures la bàyyi san mu bàyyi bàyyi ba couvre-feu bi am ba teg une heure de temps mu génn taal otoom dem ci benn salle de massage benn li tax mu euh, génn à 22 heures loolu war na ci indi ay explication même bu euh, viol bi nekkul dëgg sax li tax mu génn à 22h jalgati na sarti réew mi beneen bi ci des mooy Ousmane Sonko nan lay demee en tant que ab jullit moom mu ni jullit la di kilifa dem su futti ko ay xale yu jigéen di commencé mais sa grave loolu bu fekkee ni Ousmane Sonko moo ko def ah dëgg-dëgg nag. weneen gis na lan moo tax lan moo tax ab jullit di kilifa. Ah. du summeeku xale bu jigéen di la di la pikir. waaw non xam nga bokkuñu. lu tax bokkuñu. waaw non bokkuñu. lan moo parce que pikir kenn du ba nga set. ah kay sa xottu taat bi sax waaw d'accord benn xottu taat bi ngay wog benn partie la ñuy futti xottu taat ngay wog ni ñun la ko cuut waaw d'accord xam nga bokkuñu bokkuñu contexte bi bokkul parce que lii da ngaa ñëw indaale nabb nabbee feebar moom faju la tudd feebar faju la góor a may faj ak jigéen lay faj loolu moom ko feebar du ko mais islam da ko da te Ousmane Sonko dafay incarne ni moom moom dafay incarne ni moom moom nitu diine la l'islam araamul kuy defar sa non arab d' accord araamul kuy defar seeram lu mel ni sport d' islaam islam araamul sport islam araamul nga bëgg a wu dem ci góor mu maase la mais góor futtiku tëdd ci lal bu nooy ay jigéen wër la parce que déglu nañu benn audio ci réseaux sociaux yi xamuñu ndax c' est vrai euh, borom salon bi la wala du borom salon bi mais borom salon bi jot nañu dégg mu ni moom da Ousmane sonk la mu fay ñëw bari na lu ci bëri day ñëw ci salon bi di maase wu beneen bi ci des mooy Ousmane Sonko bi muy ñëw xale bi jigéen bi ko jiiñ viol bi Ousmane su avant Ousmane Sonko di ñëw amoon na ñaaw njort ci xale bu jigéen bi ba tax na bi xale bu jigéen bi bi Sonko ñëwee sone ñu ubbil ko boole na xale bu jigéen bi ak keneen pour ñu dugal Ousmane Sonko ci salle bi pour masser ko léegi xale bu jigéen bi moom moo éliminé keneen ki ni ko demal bàyyi ma ak moom foofa Ousmane Sonko bu fekkoon ni niveau intelligence bi ñuy wax ci moom wax dëgg yàlla bu doon am na ci moom war na am beneen doute bu bokkul ak tëdd rek ni ngalañ ñu koy masser di ko nabbu nabbee ba léegi ni xam nga Ousmane Sonko par exemple ñëw liñ ko jiiñ bu fekkee ni moom moo ko def bu dee am na ndax actuellement tuuma la daf tuuma moo amagum ndax wóoruñu ndax moom la wala du moom mais li wérte wóor mooy ah dégg nañ benn enregistrement boo xam ne nii ki ko enregistré xamuñu journaliste la xamuñu policier la xamuñu kan la ki wax ci enregistrement bi tamit muy ndaw si xamuñu ndax moo moom salon bi xamuñu ndax benn enregistrement la vocal la du gisuñu vidéo maanaam du jëmm mais bu fekkee ni liñ koy tuumaal moom la kon Ousmane Sonko weere na xamaguñu ndax ndax moom la wala du moom beneen bi ci des mooy euh, euh, audio bi ñu dégg muy daw ci réseaux sociaux yi ndaw si di wax noonu mais ki ko enregistré tamit beneen affaire la parce que enregistrement bu boo ko déggee xam nekkul lu nekkul ni ndaw femme euh, ki ko enregistré dafa ñëw tàllale ko micro pour enregistrer ko li liñ koy ji tuumaal ni Assane bu fekkee ni Ousmane Sonko moom moo ko def bu fekkee moom moo ko def mais lu garaaw la lu garaaw la bu fekkee moom moo ko def lu garaaw la waaw dem ko ay jigéen tiim la di la nabbu nabbee di la nabbu nabbee loolu lu garaaw la Ousmane. yow non loolu moom li si nekk bëriwul dara nekk si day faju day faju waaw loolu faju noonu ngay fajoo non loolu ànd naa ci moom. dagan na wa massage. Ah. dagan na. mais góor góor ma góor maase la. man moom man fii ba bofti bi wal. waaw góor du ma lëng sax waxantuma laa góor di ma nabb nabb. ñun dañu jug pour informer sénégalais yi. mais xamal leen ni leen benn waay bu ñuy wax Ousmane nekk ci réew mi ah taf état bi nii. nga xam ne état bi fu nee gees nguur gi fu ne gees gis Ousmane Sonko seen wet muy souligner ay affaires yu garaaw di révéler yu garaaw moom la ñu accuser vol dañ koo tuumaalagum nag. xamul ndax moom la wala du moom. wol kay wol wol wuy dañ ko ko tuumal dañ ko tuumal dafa violé xam nga wol mooy nga dem àgg si koo xamante ni néexu ko waaw mais loolu lépp amagun ci lu ñu leer non loolu mooy loolu mooy tuumal wol loolu la loolu amagun ci lu ñu leer waaw dama ne loolu loolu da nga nañ ko koy man la li koy tumaa mooy comme ça loolu bu doon loolu comme ça nga dem àgg si koo xamante ni àgg ba neexu ko loolu moom lañ koy tumaa mais lii buñ si niñ ko déggee bu dee noonu la amee xale bu jigéen bi moom moom moo yoolee Ousmane Sonko waaw non loolu yëpp àggagun ci loolu yëpp cest à li ñuy wax mooy Ousmane Sonko man personnellement hmm. man jàpp naa ne Ousmane Sonko bu dee liñ koy jiñ moo ko def hmm. benn ku sàggan la hmm. beneen bi mooy ku trompé Sénégal yi la sawaay jigéen jigéen Assane déglu ma rek jigéen déglu ma déglu ma jigéen lu mënul amul liñ koy jiñ dama la wax dama la wax jigéen sàggan la jigéen trompé Sénégal dama la wax fekkee moo ko def wóoruguma nag ndax moo ko def wala trompé Sénégal yi de nga ni trompé wut Sénégal ah, kay non non mais Ousmane Sonko lan lay wax fii boo doon xool da nga naan opposition bi wala sax état bi hmm. maanaam euh, ñii def politique fii Sénégal man personnellement hmm. boo ma doon loo ñi fi am gën a am diine hmm. damay cité Ousmane Sonko waaw ndax man moom laa xam ci moom. waaw ñi fi gën a euh, maandu tamit. dama hmm. koy cité parce que munul nekk impôt et domaine di fa liggéey pendant des hmm. ba génn fa kenn mënu koo toppee dërëm kon kooku ku maandu la ci alal. Hmm. bu dee diine li ñu gis si moom mooy ku am diine la. mais dama ne la lii laa. mbir mii. bu fekkee moo ko def. ku maanaam ku cuune la. non non xam nga jigéen sax jigéen non non jigéen xam nga boo dégloo waaye ñooñu gars yi yor ñeenti jabar di dem di massage su yor non loolu moo may massé nga man du ma dem salle de massage di massé wu wallaahi da nga dem salle wallaahi da nga ay góor may massé waaw waaw yow nga nga góor ma góor loolu mooy indi góor jigéen moo indi góor jigéen li koy indi mooy góor di la massé di la nabb nabbee bàyyi leen loolu gis nga Ousmane Sonko yàlla xam na ni lii ñu la tuumaal yàlla bu mu doon dëgg nag ndax man yéenewuma la naka sudul noonu même bu dee li ma mooy ëllëg réew mii hmm. sa xam nga yor nga jariñ ci réew mi jariñ ci sénégalais yi hmm. ndax am nga xam macha allah mais lii ñu lay tuumaal bu dee dëgg booy boo nga tekki sa ndomb ak tànk te génn réew mi dem foo xam nga jëm parce que lu garaaw lañ la tuumaal gis nga moom lii ñu ko tuumaal nii bu fekkee sax moom tuumala nag dama la de uh-huh. lii ñu ko fekkee dafa àgg si kaw ndaw si sax hmm. sëy ak moom ba àggal sëy ba daanu ba jóg ba takkaatu ba yem sangu dara nekku ci digganteem ak yàlla diineem waaw diineem diine ji moo koy dama laax rek dama laax rek ah may ma ñëw dafa wax ne dafa soxla réew mi am ñu ñëw dafa nànk rek am ñëw ñu ko réew mi kat ñun gis nañ ni am nañ ci yow yaakaar dinañ ko yëkkati jox la ko waaye dañ lay gunge ànd ak ñoom di ko gunge mais ñooñu moomuñu ko moomuñu ko juruñu ko jënduñu ko mais lim leen écart neen ak li muy def mais njiit da nga war a joxe le bon exemple njiit da war a joxe le bon exemple ba léegi nag ba léegi amaguñu moom la wala du moom oui ma bàcc ba exemple mooy nga dem marché wu Ousmane Sonko loolu lañ wax ni loolu la def loolu lan moo ci ne mais Ousmane Sonko yow dégg dara nekku ci waaw Assane déglu est-ce que déglu ko déglu nga moom mooy indi moom mooy indi boobu noonu femme boobu mennum moom lekk moo def moo def maam tooxi doona goo xamante ni ba mu juddoo ba léegi man musuma gis googu tooxi doon mooy ki nga xam ne dafa organiser këram. kër gi si la dëkk. si la defar benn appartement. loolu bari ba Dakar ba dee rek si lay képp kilifa yi. waaw ñu daal dem lijjanti seen i diil teg seen i diil euh, lala Ousmane Sonko ndëgg sërëx bu dee noonu la demee Ousmane Sonko ñëw tàbbi si ndëgg sërëx. yaa ngi door a wax nag. Ousmane Sonko léegi nag ndaw si si boppam ki moom ki moom liggéey bi hmm. ñëw di victime di jéem a jëllale mais lépp moom la fi mu ne nii wàllam ko jot moom bu dee lu am waaw bu dee xaalis a tax ñu def lii Ousmane Sonko ah, ah. wàllam dana ko jot bu dee daaneel nañ ko wax ah. bu dee dañ ko bëgg a daaneel Ousmane Sonko moom c'est sûr que ni moom lii piège la moom loolu moom ñëpp xam nañ ko piège la boo xam ne nii ay nit ñoo ko piégé léegi nag ndax dugg na ci piège bi kay la ñuy wax wala dugg ci loolu mooy problème bi mais son ko day déranger loolu leer na ñëpp day déranger benn jeune la bu am xam-xam. non day déranger Ousmane Sonko yow yëngal fi mu a teg bët. déranger wut Ousmane Sonko la ñuy bañ loolu moom say wax la mais Ousmane Sonko la wax Ousmane Sonko déranger wut kenn askan daa am ah, ñu am ci moom yaakaar ànd ak moom Macky ak di ko wër ñëpp état la la wax nii ak APR ak ñëpp Ousmane Sonko moo leen di déranger lii ñu ko def nii piège la mais piège bi nag bu fekkee dugg na ci piège bi kon cuune dëgg dëgg dëgg dëgg mooy Ousmane Sonko parce que nag Ousmane Sonko au moins euh, niveau bi mu am war naa dépassé nag ñu koy piéger ci ay salon ay ay salon ay yeneen sax mën naa d'accord. Assane en tout cas daal naa nekk attention de. mën naa nekk dégg nga dégg nga est-ce que dégg nga audio ndaw si. Ah. ndaw si nee na Ousmane Sonko bu demee voyage ba ñëw lu ci ëpp lay ñëw ci salon bi. waaw te moom mooy indaale produit mooy indaale frotté bi. waaw Ousmane Sonko mu ngi ñaari jabar. waaw lan moo tax jëlul frotté lan lay wuti ci salon boo xam ne ay ba pare est-ce nañ loolu ndax loolu eh, eh. dañ koy jàng yow am nga wax waaw d'accord yaa dañ koy jàng ba mu man ko d'accord léegi nag mu daal dem mais xam nga lan si lim la ndaw si na la digg Ousmane Sonko Ousmane Sonko damay fekk dégg ñu naan ibaadu la ibaadu moom ñëpp ay ibaadu lañ waaw d'accord non ñëpp ay ibaadu lañ beneen kuréel bi par exemple ñu ni kon ñun ñëpp ay ibaadu lañ waaw d'accord ñun ñëpp ay ibaadu lañ mais da ngay nuyu jigéen bu fi xaajale ñun ñëpp déggal fi may waxee déggal Sonko laa la wax ni la ñun ñëpp ay ibaadu lañ bul xaajale yéen yi bul xaajale kat yéen sénégalais yi Ousmane Sonko ibaadu la ak du ibaadu Ousmane Sonko ab jullit la actuellement victime la ci mbir mii ñu ko jiiñ xamuñu ndax moo ko def xamuñu ndax deful man nag li may ñaan mooy yàlla bu mu am ndax Ousmane Sonko ndaw la loo xam dara wa non bu amee dara ci yow. li ma la rek si ñëpp bu ko dalee nit la. bu ko dalee nit ñi ba nit ñi ko téyewoon kon dañ ko xam nga xam nga nit ki bu fekkee. vous les moom ni am naa yaakaar ci moom si réew mi. waaw ah? ci réew mi nga am moom yaakaar. topp ko ca loola. Mm, si réew mi. mais bu fekkee ne nee nga am nga ci moom yaakaar mu def erreur erreur ba moom la concerné buñ ko dee tëj moom la ñu tëj buñ ko dee condamné moom la ñu condamné mais acte bi nga xamante ni moom nga ko toppee muy bëgg gi mu bëgg réew mi wala liggéey bi mu nar liggéey réew mi mais lii mu def ndaw bu dee moo ko def teewul mu mën a def am na ni duñ wàcc jigéen. njiit a joxe la bon exemple. ma ne ñoo xam duñ wàcc jigéen ku leen toppoon da leen fekk si kaw jigéen teggee leen dafa am loo xam ne nit ki la xam nga bari démboo jaay yaa ngi dégg bari démboo jaay yaa di wax man bàcc ma samba bul àggale nga ni pour àggale. ah dama koy leeral de. mii li nga def Ousmane Sonko ko def kooku du njiit moo tax bi ko tuumaalee ci lu mel noonu plateau télévision bu ci defoon bu ci defoon kooku bu doon dëgg moo gën a garaawle Ousmane Sonko nga amala waaw d'accord du gën a ko garaawle jiitewul benn institution nga ni jiitewul benn institution yow yaa xamul institution bu mu déedéet jiitewul dara man la kooku oui dafa ndànk kooku moo gën a sax Ousmane Sonko déedéet Ah, Ousmane Sonko dafa taxaw jox leen ma réew mi waaw jox leen ma réew mi nag xam nga jox leen ma mooy Ousmane Sonko moo war a nekk cinquième président oui ma gis nga kee dafa jiite ay oustaz tey man gëm naa li ma gëm li ma gëm faralu ma Ousmane Sonko xam naa li ma gëm mooy Macky Sall moom bu poussé Ousmane Sonko ñëw oui ma gis gis guma lu ko fi tane mais dama la pièce bii pièce bii ko gars yi nii nga xam ne nii moom nee na na ci page Facebook am de bul fàtte nee bi ñoo ko def wu jëm yi ñoo ko def. kon kan moo ko dugal ci piège bi kenn sa moo moo yor néegam woo kon ndaw si yor salon ba déedéet yorul néeg de kooku salon la yor day liggéey. salon mooy lan salon la yor. salon salon salle de massage la. si luñ koy defee. salle de massage mbedd mi ko defee. déedéet déedéet mais ci kër euh, kër ay appartement la. appartement boo duggee si biir. lu mu dem nañu reportage appartement boo duggee boo duggee si biir. léegi la lu mu doon ah voilà. kon bul dugg bul dugg waaw bul Ousmane Sonko yor ñaari soxna di kilifa sénégalais yi bala ñuy tëj émission bi ñun plateau bii li tax ñu def ko mooy dañoo dégg rumeur la rumeur la amagum ku ci maanaam ku dul justice xamagoo ci dara ak ndaw si ak yàlla ak Ousmane Sonko wóoruñu ndax moo def wala deful Ousmane Sonko nag si jeune la boo xam ne nii am na xam-xam jàng na tey li ñu xam ci moom mooy ku maandu la loolu lañ xam ci moom pour les sans ba keroog ñuy gis leneen. mais dañu la pièce bii nga xam ne moom nangu na ni moom nee na moom nee na pièce lii nii pièce la moom Ousmane Sonko moo ko wax nee lii pièce la ndax pièce la wala du pièce nañ bàyyi wànnante ko bëtam nañ xaar ba ci kanam bu demee ba ci kanam bu dee pièce la dañ xam dara bu dul pièce na nag bu dee moo ko def exprès nag waa Pastef nañu supprimer Ousmane Sonko te jël keneen teg fa lii mooy wax ji wóoraguñu nax am na wala amagul en tout cas émission la boo xam ne. Ousmane Sonko ko neexee ma ni bu ko bu ko neexee mën naa sëy ba doyal yoonu positif nekku si Assane loolu nga wax noonu sëy ba doyal bu dee diine yow yow li nga yow non diine yow sëy ba doyal kan moo ko moom yow li nga wax ne tegoo